وادود كلي أبدا بالهدي والتامني عند الوجد بعد أن ينزل مني تخافت حسان الدلال سبان ديكو gérant bi di Serigne Modou Seck mu ngi Fall en face centre Don Bosco dañuy yëngu ci walum décoration Yi décoration ma gis ñuy dem amul fen. bu dee dañ lay marié jokol ak ñom ñu défaral la ba mu baax am nañu tamit ay ndaw yu xarañ yu lay assister sa mariage ba mu jeex organiser la servir bo paré ñu delloo bagage yi mbokk mi boy def Carlo, tiant wala cérémonie religieuse ak bépp cérémonie demal seeti waa Soubane Déco dañuy def it location bâche format 12 8 30 sur 15 ak façon bâche boobu location chaise matériel sonorisation lépp ñoo la koy livreel caméra photo bàyyi wuñu ko ak prestation de service yéen ñi daan dem ngir wut bâche yu mag pour seen événement

wala en bagage vais déplacer. Souban ñoo ñoti gaaw suñu adresse la ci Medina Fall en face centre de Bosco gérant Serigne Modou sec Baba Galle Mangafa. marché central le garas wotiir am nañ fa représentant Moui Ibrahima Diop ñu gën ko xam ci téléphone

اليقين كما على الذي